ak yooyu collectif boobu ma yëgal leen na ay politiciens lañu dañu àndul ak man te loolu c'est normal parce que yàlla sax am na ñoo xam ne moo leen sàkk te ànduñoo moom gëmuñu ko donc ñoom am nañu droit ñaxtu man bañaluma leen ko donc bu ñuy ñaxtu bu dee convention bi ñu signé rek ak partenariat bi convention baa ngi nii amul kenn ci ñoom ku mës a ñëw fii ci mairie bi di laaj convention bi convention bi nëbbuñu ko amul benn problème te nag ma yëgal leen ne euh, man damay défendre ay intérêt Grand Dakar convention bi ñu ko préparé man dama ko yónnee sunu avocat ne ko ah seetal ma ndax amul loo xam ne mun nañ si am dugal jaan pour kii ko Euh, pour euh, laxas ko si avocat bi moo ma génneel yoo xam ne jafe-jafe la woon ñu rectifier ko defaraat convention bi pour def ko donc man intérêt Grand rek moo ma tax a jóg moo tax ma def ko donc convention bi mu ngi fii waa ñëlee euh, ñooñu bu ñu bëggee gis convention bi mun nañu ñëw yenn journalistes yi ku bëgg gis convention yi mu ngi fii balaa ñuy dem tey dama bëgg lépp leer lépp leer nga xam ne dootuñu ñëw dellu si di wax ay wax yoo xam ne vraiment euh, taxawul fen ah en wolof pour Sadio faati dafa bloqué yoon bi yoon bi il faut ngeen xam ne balaa ñuy signe convention bi sax la la ñu bloqué woon yoon bi parce que ñiy liggéey fii dañu am ay grue am ay engin pour des question de sécurité mais ñu bàyyi ku nekk romb fu ngeen dem ci Dakar da ngeen di gis rue yoo xam ne dañ koy baare parce que dafa am ay travaux ñun nag dañuy moytu sunu askan bi gaañu loolu moom moo tax ñu autorisé woon Afrique capital pour mu tëj ko boobu signé guñu convention bi boobu je crois que c'était en 2017 alors pour des questions de sécurité loolu moom moo taxoon léegi dañ leen defal lu ñu tuddee OVP mooy occupation voie publique ñoom dañu doon fay weer bu nekk perception chèque la woon un million trois cent et million deux cent cinquante mille par mois lañ doon fay fale kooku projet liberté bi la rek bokkul woon ak convention bi sunu convention ñun ñu ngi ko signé en deux mille dix huit en deux mille dix neuf décembre deux mille dix neuf alors donc loolu ñun ñoo ko autorisé woon te ñun commune am nañu droit autorisé ñu tëj rue pour am liggéey bu ñu siy liggéey walla pour aar askan bi da ngeen di gis sax kër boo xam ne mu ngi daanu mu ngi toj pour des question de sécurité ñun dañuy tëj koñ bi pour bañ doomu Grand Dakar yi askan bi euh, gaañu si donc rue bi ñun ñoo ko tëjoon léegi bi ñu demee nag ba projet bi ñëw ak sunu convention ñu war a defar itam euh, parking beeg yooyu mais c'est la même chose pour des questions de sécurité mais bii sax c'est le sous-préfet moom moo def un arrêté pour autoriser pour un temps bien déterminé la fermeture de la rue voilà donc loolu moom mooy wone ne ñun lépp lu ñuy def dañ koy def jaaral ko ci yoon pour bañ rek ay coow am si te loolu rek la mais yoon